asalaamaaleykum mbokk yi mu itam ñu topp seen site internet mourides point info ñu dellu si di leen présenté seen émission yeewi yeewi tey ñu feggoog plat ñu feggoog ci plateau bi ak Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma bi nga xam ne moo jiite diwaanu Mouridine bi nga xam ne mu ëmb bépp buntu ci Cheikh Mouhamadou Moustapha fii ci Darou Khoudoss kon dañu def lu jox kàddu gi Serigne bi mu nuyoo. jërëjëf sa Serigne ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nuyu képp ku ñuy seetaan wala nga ñuy déglu. di musli seytaane di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba. jërëjëf sëriñ bi duñ na fi tàbbi ci waxtaan wi suñu laaj bu njëkk di nga indil ñu ay leeral ci diwaanu Mouridiniya ci kuréel boobu. daaw ñu ngi lay ñaan nga may ñu tuuti rek ñu jiital ay cant ak i ngërëm ak i ziar jamale ko ci Cheikh Seydi Makhtar xalif général des Mourides euh, di sant ak ziar Serigne Ahmadou Makhtar mi borom kër gi di xalifa Cheikh Mouhamadou Moustapha di sant bu baax sunu kilifa yi Serigne Cheikh Madina Serigne Abdou Fatah ak ñëw Cheikh Moustapha gépp di leen ziare <coughs> di wax rek ne diwaanu Mouridina sëriñ du Maxtaar moo ko digle 2007 ba léegi la ko taxawal la joxoon digal ngir ñu taxawal ko mu doon mu mel ni dafa waxoon ne dafa bëgg kuréel boo xam ne lëkkale buntu kër Cheikh Moustapha yi ngir bennoo gi xam ne Cheikh Modou Moustapha bëggoon na ko ci ak njabootam ak taalibe yi waaye yéene na ko ci jullit yëpp loolu la bëggoon a firndeel ci ak njabootam mm, ba mu ca ñaandu ko ak taalib yi aju ci kër gi yëpp mu wax ne buñ ko tuddee sax ab daayira di ko wutalu carte waaye na doon kuréel boo xam ne daal na fédéré bépp daayira bu aju ci sax mun Moussa ah topp bi wuñ it ci daayira boobu benn sas bu dul rosi bi nga xam ne da nga koy jënd at mu jot di mille six di ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett war a nekk ñaar fukk ak juróom-ñetti dërëm ci weeru jot ngir taalibe bu ne mu wax ne loolu it li mu ci bëgg mooy xam na ni murid yi xam sëriñ Tuubaa yëpp waaye rawatina waa Daaru Xuddoos ne xam ne liggéey bi ñoo ko moom jeexatali Cheikh Moustapha yi yi mu fi bàyyi yëpp tam jële woon ko sëriñ Tuubaa lu lu mat a sàmm la lu mat a ñoŋal la mu wax na loolu taalibe bi yëpp ku sañoon yaa koy def waaye bu ci ñëpp àndee du dis ci kenn ci kenn ku ne dana ci yëg boppam loolu bokk na ci magal gi ñuy màggale Serigne Touba ci ñu koy wax maglu ñaar fukki fan ci weeru Muharram Cheikh Moustapha taxawaloon ko woote woon ko doon ko wooteel Serigne Touba muy bis bu mu ñibbisee Touba bokk na ci këram yi mu fi bàyyi ci jële woon ko ci Serigne Touba muy béyti ak njaareem ak li mu am lépp mu mel ni loolu kon war na kenn ku nekk ci ñun warteef la ci yow ngay sàmmoonte ak jeextal yooyu ndax patrimoine la bu riche ci murit ci lislaam mu rawatina ci murit waaye rawatina ci Daaru Xudus kon daal ci gàttal loolu moo waraloon sëriñ bi joxe ndigal ñu taxawal kuréel boobu muy diwaanul muridina yàlla baaxe nu ñu yore woon ko taxawee ba léegi loolu it ñu di ko sant sëriñ bi bu baax ak njaboot gi tax euh, ak matam ak mbaaxam moo tax ñu mu wóolu na noonu ba ñu mën cee egsi fii waaye maguñu fi ëpp sutuñu fi aw njàng bokk yim ko bokkalit muy ak njabootam and ci ak mom ba tax ñu may ma ci seen bopp lu nga xamni lool rek moko waral kon nak maa ngi seer yi bokk talibi yépp ñu bokkal kër gi diko ko seer yoon wépp diko ko seer julli yépp ci ne ma ngi leen di sante ci cër boobu nga xam ne cëralal nañ ma ko cëralal nañ ma ko te bokk yépp ànd ci rafet la ko ànd ci ak man jàppale ma ci jàppin wu rafet bokk talib yi di nongu lépp ñu ànd di ci liggéey liggéey bu rafet ba egsi fii jërëjëf sëriñ bi si yooyu leeral euh, bëggoon nañ tamit nga xamal ñu comme ren ñoo ci wàccaayu édition 2015 ci magul dara plus googu yan wàcc yan matuwaay nga xam ne fren lañ toll ci wàccaay woowu waaw matuwaay yiñ ci daan def rek def nañ ci lu ko raw ndax màggal gi ñun yàlla def na xam nañ lu mu doon ci ñun ni mu taxawee ci ñun mi képp kuy taalif kër gi xam nga ko ba tax na luñ ci defoon daaw rek buñ yàlla dimbalee bañ fekkewaat ko rek dañ ci fas yéene def lu ko raw moo tax nañ ci daan taxawee tax yi nu maase la moo xam ne kër gépp ko daan ànd di ko taxaw ñëpp du ci def seen ñax ak seen xalaat loola nag ren dafa gën a dëgër la ko gën a dëgër it mooy jaboot gi seen bopp di ko sëñ bi baaxoo woon di defe at mu jot ci li ëpp ci li weesu dajalewaatu njabootam soññ leen ci benn soññ leen ci toppante waaye nag soññ leen ci taxawu kër gi xamal leen na leen lépp ñokk moom li fi nekk lépp yi fi sëñ bi la ci ñoo fiy sëñ bi jiital leen ci liggéey bi loola ren wax dëgg yàlla am na ci ay pas-pas yu dëgër yu rafet yu ci njaboot gi jël ci njiitul sëriñ Cheikh ñoo nga xam ne moom la def muy jëwriñu màggal gi loolu nag taxawaay yu bees la di yokk gu xam ne dafa ñëw fekk ci li waaye yàqu dara ci li kon mu mel ne ñooñu lu ñu jiite faaw mu am ak coppiku ndax ñoo waroon a jiite ñooy magi kër gi mag ci njaboot gi ñu it ñu fas yéene doon ay donga topp ci seen ginnaaw ñu ànd liggéeyal sëriñ bi jërëjëf si euh, yooyu leeral bu lu waral ren ñu loolu lu mat a leeral la ndax dégg naa fi ñu bari ñu naan màggal gi dañ koo tuddee El waaye mu mel ne loolu njuumte def ci xaw am ndax dëgg la maneesoon na ko koo tuddee ndax jomb ko waaye nag de bis boo xam ne bisum ñaan la tuddewuñu ko kenn bis bi bisub sëriñ Tuubaa la muy bis bi mu dellu see Tuubaa bi mu ñibbi see Tuubaa ki ko njëkk wuutu Cheikh Maodo Moustapha woote ko ñu xamit anam yam ko doon woote amit ay dénkaane ak digle yuñ ci def yooyu yëpp dafa tax mu doon bis moo xam ne neexut di tudde kenn waaye nag bi ñu toogee waxtaan ci li nga xamante ne moom la lislaam digle ci ci ànd ci bennoo ci diine waaye ak ji nga xam ne yàlla jox na ko ak bokk ak bokkoo tax ñu ni kat jekk na jaajuwaaj bii nga xam ne jaaju bu bees la njaboot gi am ko ci bis bi suñ ko amee ñu mandargaale ko dara mandargaal googu ñu wax nag ne am na ab exposition bi ñu ci daan def ñu ne nañ ko tuddee sunu moom El Hadj Malick ngir dundal bokk ji loolu mooy li am waaye du ne màggal gi lañ tuddee El Hadj Malick ndax màggal gi mag bis la màggal la guddi goo nga xam ne dañ koy ñaan ak a toroxlu di tuub ci yàlla di jàng alxuraan di jàng xasida di julli ci yonent bi di ñaanal sëñ bi di ñaanal ñoñam waaye nag di ci ñaan nit njéggal waaw loola nag du du ay barab la yoo xam ne neexul di tudde kenn exposition boobu daal la wax ne lañ tudde sunu maam Alaaji Maalik ngir dundale ko bokk gi waaye ngir jàngal ci it bokk yi ak taalib yi li sëriñ li El Hadj bokk ak sëriñ Tuubaa li bokk ci maaram ba léegi nga xam ñu baax ñëpp ay bokk lañ ngir bennoo gis El Hadj gi Serigne Sidi Makhtar xalif général des Mourides bëgg ci jullit ji di ko woote ci yoonam wii te kenn wër ca jiitu Daaru Xudus ngir li yàlla dogal ci diggante bi looloo moo waral ñu ni lii nañ ko cërale suñu suñu maam El Hadj kon loolu noonu la demee ci gàttal jërëjëf sëriñ bi ci leeral yooyu ngeen ñu leeral ci li aju ci suñu maam El Hadj comme que ñu ngi egg si njeexantalu émission bi duñ def lu dul jébbal kàddu gi nga jox ñu suñu mot de la waaw di leen sant bu baax di ñaan euh, yàlla yokk leen ndax seen tur neex na lool ci dégg murit info moom lépp na murita rek tegu ci yoon. incha allah waaye di sant mbokk yi di sant mbokki taalib yi ci li jiitu ak lii ñu nekk ndax ah sëriñ bi rek lañu am sëriñ bi rek ku dib murit moo la ñor sëriñ bi rekk lañuy ñuy xeeñtu kenn ku nekkit dafa am nu la yàlla taxawale ci sëriñ bi fu mu la ca boolee mu mel ni sëriñ bi fu biram nekk rekk ma nga fa di leen soññ bu baax ci ñu fonkaat bis bi ngir xam ne kat ki ñu sëñ bi booleel ñuy sàkku ci moom sëriñ muy Seex Moustapha yàlla da ko boole ci ñi jiitu da ko jiital te mujjale ko ñi ko wuutu ñéppit amoon fu ñu teg bis bi ak nuñ ko fonke woon ca ñooña seeni suñu waajur yooyee ak seeni waajur la woon lu nekk ñu daj ko ci bis bi ngir taxawal ko ngir dundal ko ba mu fii kon nag loola defe naa lu mat di bàyyi xel la ñu fonkaat ko amit jis gisin wu bees wuñ ci am ngir jamono dafa soppeeku di dox ca lii ñuy def di màggal gi di am di bis boo xam ne lu jamono soppiku soppiku am na loolu waru cee soppiku ngir kiñ koy wooteel ak liñ koy wooteel ndax sëriñ bi lañ koy wooteel waaye ci ak ñibbiseem Tuubaa lañ koy wooteel kon loola dara wur ci mën a soppiku mu doon guddi goo xam ne guddi toroxlu rekk la ak fàttali ko suñu borom guddi tuub la ak jaamu yàlla guddi ñaan la waaye guddi bàyyi sa bopp xel ci ne ëllëg ndegam lii fii ku ñu yaakaar ñépp fii la jaar bañ koy defal lii ñoo cay topp kon dool baat soññoo yooyu rek la amoon ci lu may lu may jàllale ginnaaw bi ñu leen sante di leen gërëm wax la jërë ngeen jëf mbokk ñu doon topp ci seen site internet Mourides Info ñi ngi fegg woon suñu plateau ak Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma bi nga xam ne moo jiite diwaanu Mouridiniya bi nga xam ne moo ëmb ëttu Cheikh Moudou Moustapha yi nga xam ne ñoo nekk ci Darou Khoudoss kon sëñ bi équipe bu Mourides Info ñu ngi lay jaajëfal kon mbokk ñu doon topp ci seen site internet ñoo ngi leen tax dig daje ba beneen yoon jërë